أنا الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق. نرحب بكم أمام فضيلة الخليفة الشيخ محمد بن البحار. يعني نرحب بكم على ما تحملتم من مشقات ومن المتاعب للوصول ولتلبية الدعوة. في المقدمة سوف يعني مقدم واحد تفسير آخر ليسلم على الشيخ من بعد إن شاء الله واحد منكم يعني الشيخ أسامة سوف يلقي كلمة أو الشيخ عبد الفتاح سديس كذلك من اليمن وإن شاء الله الشيخ سيدعو لنا ونرجع يعني لمواصلة البرنامج kon ñii sëñ bi mooy gan ñi nga xamante ne ñoo jógee bitim réew jógee nag monde islam bépp ndax tey kii dend ak yow moo nekkoon rek jàng al azhar sabiqan Cheikh Ousama al Abd Cheikh Ousama al Abd su doon député la ci ci parlement bi. Cheikh Abdou Fattah Eddiis تدريس اليافعي من من اليمن من علماء اليمن كثير من المؤلفات وبحوث حول الصوفية والعقيدة نعم نعم و Cheikh Khalid Al-Fawzani min al-Maghrib min ulama al-Maghrib Cheikh Khalid Al-Fawzani Al-Fawzani هذا شيخ شيخ شيخ رضا اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم الفوزاني moom moo nekk dafa am kii ca xale Touzani moom dina xaalis ca xaalis ak Touzani. waaw boo ko defee kese am na ay compost incha allah mbaa mu daal di wax ñu am ay maxal. Cheikh Mahamadou Mokhtar aljazairi baarakallah waaw Cheikh Amadou Mokhtar aljazairi min aljazair min aljazair cheikh tariqa alqadiriya cheikh tariqa alqadiriya macha allah baarakallah shukran baarakallah xayaakum llah cheikh Ousmane Doumbouya cheikhu Daba moom eh, foofu nga ñëwee Côte d'Ivoire moom mbooloo mu bari la am yor fa te bi ma ñetteel yoon mu ñëw te gàmmu ko muy def lépp maanaam yére bàyyi laa ni lay sol maanaam dafa ne mbooloo mu bari ko topp waaye moom man mën ne talibi sëñ Tuubaa waaw sëñ sëñ Abdoulaye sëñ Moutala am na gàmmu bu mu def moom moo dajal moom mais mu bëgg sëñ Cheikh Abdou Khadir lii moom Cheikh Khadir ya moom defe naa ne kenn du ko fa du ko kii man Cheikh Abdou Khadir ñu ngi leen di moom li mu si ñëw bëri na lool wax dëgg yàlla Cheikh Abdou Samad al-Yazidi Cheikh Abdou Samad yaa ay moom itam من أصل مغربي ولكن رئيس يعني ال ال يعني الجماعات الإسلامية في ألمانيا ألمانيا واو واو ألمانيا سلام عمر هنا هنا ما شاء الله